ñu leen di jaajëfal mbokk internet yi ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci sawan mi ak suñu plateforme digitale yëpp di leen dalal jàmm ci seen i xibaar ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci eh, xibaar yi eh, ki leen di eh, Serigne Ahmed xalifa ñas def na ay révélation daal koy jëmale rek ci ki nga xamante ne moom moo di président Macky Sall daal di wax rek ne fii ak 2022 bu tekkiwul nombal tànkam daanaka dina am ay problème yu bari accusation de malversation ki nga xamante ne moom moo di euh, Aminata euh, Touré nekkoon njiital conseil économique social et environnemental génn rek daal di tontu ay détracteur am daal di wax rek ne kenn mënul yàq li nga xamante ne moom mooy réputation ak intégrité coronavirus fi ci Sénégal tey ci talaata bi ñetteelu fan ci weeru novembre Sénégal nag ñetti cas yu ñel wàllu coronavirus la am mu mel ni rek benn kaa importé euh, amul benn cas contact itam amul waaye rek ñetti cas média communautaire lañ ci euh, saytu mbokk internet yi pàcc yi gën a fës ñu ngi ñëw a génn nag ci jukki xibaar yi daal koy tàmbalee nag ak révélation yi nga xamante ne nii ki eh, la di sëriñ Ahmed euh, def rek jëmale ko ci ki nga xamante ne ci nguuru ki nga xamante ne moom moo di président euh, Macky Sall lam ca xamle rek mu géré dëkk bi ak nu mu bàyyee rek ñu jaxat-jaxatee xaalisu réew mi ko suufu réew mi la mu mën a def rek comme solution mooy rek mu xaar ba 2022 mu daal rek tekki nombal tànkam itam daal di dem lu ko mooy rek dina am ay euh, problème xëy nag laata moo dem rek war naa mën a rectifier waat euh, tiir yi la moo xam le waat nag moom Ahmed Khalifa Niass mooy rek ñu euh, jël note ndax it nag au sein de l'APR dina sax nag mujj am ay problème ndax ña fa nekk nag ay cadre la yoo xamante ne nii am nañu xel di xalaat Euh, ba tey nag ci euh, wàllug politique mu mel nii rek kii di euh, Aminata Touré génn na rek daal di indi ab tontu ci njuuj njaaj yi nga xamante ne nii moom la ñu ko jiiñ ci ni mu yoree woon fi nga xamante ne moom mooy conseil économique social et moom nag ci tontoom boobule lam ca njëkk a wax rek mooy bu ñuy xaarandi li nga xamante ne moom mooy passation de service bi mu war a def ak ki nga xamante ne nii moom moo di président Idrissa Seck la mu bëgg rek nit ñi xam ko mooy rek ne jiite na li nga xamante ne moom mooy conseil économique social et environnemental ci giiru 16 mois. ni mu ko yoree woon nag daal di eh, tënku ci règle ak standard bon gestion yi te sax nag kayit yi koy firnde eh, firndeel daanaka disponible na waaye itam def na déclaration de patrimoine bi nga xamante ne moom la déposé eh, fële ca of nag ci noonu rek la profité ci occasion bi daal di wax rek ne nekk na ci étape de sa vie administrative et politique boo xamante ne nii kenn mënta yàq réputation ak intégrité bokk na nag ci li mu tëjee bataaxalam boobule di dànkaafu rek képp koo xamante ne ni uh, daf ko bëgg a uh, sosal wala rek mu koy uh, intimider ci ni mu yore woon conseil économique social et environnemental ñu rappeler rek ni journal bi la di le quotidien libération waxoon na ni rek ki la di Aminata Touré na mu yore woon ndombal tànk ba ñu ko joxoon ki la di président Macky Sall daf cee jot rek ay yoo xamante ne ni neexu ko. ba tey nag ci wàllu euh, politique ginnaaw bi nga xamante ni nii tekki nañ nombal tànk ki li di euh, Mimi Touré daal di euh, fallak ci postam ba mu doon occupé ki li di sa Seck ni ci ay cadre parti réew mi daal di tàmbale rek nag di wedd ki nga xamante ne moom moo di Idriss Seck ndax it nag dañoo mujjee woon rek ay groupe WhatsApp ngir fa ngir rek di fa mën a waxtaan waaye nag jamono ji ñu saytu rek ab cascade de désabonnement boo xamante ne nii am na ci groupe WhatsApp yooyu la ba sax na nag kenn ci ñoom di wax rek ne kii di Idriss Seck dafa confirmer li nga xamante ne ni moom la Sénégal yi doon am ay jiixi jaaxal ndax it nag noppeem bu yàgg biile ndekete yow dafa doon làqatu rek di gisante ki nga xamante ne ni uh, moom moo di uh, président uh, Macky Sall beneen cadre réew mi nag daal di koy feelu rek daal di wax ne dafay quitter parti réew mi jeex na tàq ndax bokkatul foofu ndax it nag kii di Idriss Seck daf leen bett bokk na itam ci lu gën a fës ci eh, xibaar yi tey eh, talaata ñetteelu fan ci weeru novembre communiqué bi nga xamante ne nii kuréel bu ñu denk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew réewum Sénégal jébbal nañu ko mu mel ni rek ci ñeenti téeméer test yi nga xamante ne nii moom la ñu amal ñett ñoo ci ñëwaat positif daal di ñeel wàllu coronavirus mu doon ab taux de positivité de 0,75 pour cent cas positif yooyu nag eh, doon ñetti cas issus de la transmission communautaire cas communautaire yooyu nag fañ ko gis moom mooy cité Kër Damel Grand Mbao fekkee bis tey benn cas importé amul waaye itam benn ka contact aussi enregistré wuñ ko ñu wàññi itam lu tollook juróom-ñeent fukk ci ay nit yoo xamante ne nii hospitalisé woon nañ leen ñu jëleen contrôle négatif daal di leen déclaré guéri juróomi nit ñoo nekk fële ca euh, Sowetas ni ki démb nag ci altine bi ñaareelu fan ci weeru novembre benn bakkan moom moo xor ci jàngoro yi coronavirus ba fi mi duggee ak léegi nag ñu wàññi lu tollook fukki junni ak juróom ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk nit yoo xamante ne ñoo jotalaare ak jàngoro yi coronavirus ci ñoom juróom fukk fukki junni juróom ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñeent ci ay nit yoo xamante ne ñoo amee tan ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ñoo ci ñàkk seen bakkan ak it nag téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci ay nit yoo xamante ne nii ñu ngi ci loxoy euh, docteur kuréel gu ñu dénk wàllu gu yaram fii ci euh, Sénégal di euh, dolli rek ñaax askanuk Sénégal ñu gën a dëgëral taxawaay yi ngir ànd rek xeex li nga xamante ne nii moom mooy jàngoroy coronavirus. maanaam naa ci bu doon bu doon jaaxal a du xaar waaw respecté ma nag man booy man doomu jaaxal laa waaw loolu dafa leer loolu dafa bi nag moo gën ban xaalis moo gën ah, yow nga am jaaxal dugg da ngaa fay ay moo gën moo gën ci la ne jaaxal a métier la ne jaaxal li mu yor moo ko moom booy dañuy naxaate rek ay naxam da ne da ngaa a ci jaaxal mi ah, jaaxal li mu yor du xaalisu xale de daana ko yàlla suturaal nag li mu yor moom koy bokk a ñun loolu dafa leer tegu ñu bët de jaaxal bu ko nekkoon teg ñu mbokk internet foofu la ñuy jaaree daal di ndaar keppe xibaar yi bëccëg bi sant ngërëm leen leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci saw limite di jox dig daje ëllëg jërë ngeen jox